mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ba cheikh mooy nuyoo tey ziar mbokk yi lu def waxu lu ay di jàmbat mbokk yi nan lañu ñu mën a seetaane lu toll ci ñetti junniy borom kër ak lu topp ndox mi nangu seeni kër lu ëpp weer ba ndox ma verte amul kenn kenn ku taxaw ngir lijjanti leen mbokk yi lu xew ku xam wax ma mbokk yi fukki at ak benn fukki at ak ñaar ñu dënk la ab gox boobu ba tey mësuñoo gis benn plan ne fi ak juróomi at lii laa fas yéenee dox ci jafe-jafe yi nga xam ne am na ci dëkk bi kenn musul gis benn xalaat ci fukki at ak benn jàpp fukki at ak ñaar ci jafe-jafe yi nga xam ne nii moo nekk ci dëkk bi mbokk yi lu xew ku xam wax ma te sa warteef la nit ñi nekk ci ay jafe-jafe gestu gis la donte mënoo nga jéem ñu xam ne jéem tële dara na ci dooroo fay woo doyatul nag ngay woote wàllu di tàllal sa loxo ci keneen bu dee loolu rek ci des kon baal xam nañ ko te waa dëkk bi na la biir ne ñooy defar dëkk bi liñ ci mën kenn mënu ko ci lu xew bu ñu waxee ñu ne waa dëkk bi du ñu fay boo laajee waa dëkk bi ñu ne dañ ñoo doyul ndax fukki at ak benn fukki at ak ñaar ñu ngi fi di ñu laaj ñu leen di jox te gisuñu fenn fu ñu ko def bu dee jafe-jafe yi nit ñiy dund amoo ci xalaat àndoo ko am gis-gis bu ñuy joxe marché du ñu nu ñu koy joxee ci seeni biir lañ koy joxe bu liggéey ba sottee du baax bu ñu ko joxee koo xam ne nii nekkul ci seen biir ñu indi ay gàllankoor ba liggéey ba yàqu looloo fi am mbokk yi lu ku xam wax ma lan lañ def ci lëndamaay gi benn lamp mu suñ koo jënd gannaaw buñ ñu mayee ay lamp ñu jëlee lamp yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ca jamonoy sëriñ Saliou ca jamonoy Serigne Sidi Mokhtar di ko ndamoo mënta de fii ngeen ko fekk da ngeen ko jëlee ci barab yóbbu ko ci barab ñaata barabu fajukaay ngeen fi defar moo ne ci seen warteef la poste de santé cinquante millions lay tabax na juróomi poste de santé mbokk ñaata yoon ngeen yàq alal joo ne da di dajale nit ngir naal yudul sotti mukk barki démb teg nañ barabu fajukaay boo xam ne nee nañ yoo yaay amul fenn waaw nu ngeen def ak yañu tàmbale woon te yeggul ba tey ana ba ngeen tegoon keere ana ba ngeen te benn bu ci nekk ñu xayma ko ci quatre-vingt-treize millions fu mu toll lu ko téye lu tax ngeen xarci ko ci loxo ka ko yoroon lu tax bu ngeen joxee nit marché te déggoowu leen bu leen laajee acompte du ngeen ko ko jox lu tax saa bu leen neexee ngeen dagg ko jox ko ku leen neex te liggéey ba du yegg mukk damay laaj rek ku xam wax ma pakasen bi catana juróom-ñeenti milliards ngeen bàyyi fi ARD mi nga xam ne mu ngi fii ci njaareem ngir taxawu commune bi ci seeni marché ngeen wër ko ndombo dem jox ko AGETIP lu tax mbaa du am conflit d'intérêt waaw lu tax ku xam wax ma 9 milliards du ay caaxaan de 5 pour cent ci AGETIP ARD ne laajuma dara te gunge commune yi moo tax mu judd cinq pour ci neuf milliards te nga mën a jox kii neuf milliards yi dërëm du ci jël jàpp ngeen ne lii mooy yorin wu sell lii mooy commune bi gën ci commune yi lii mooy dëkk bi nga xam ne muy moo raw dëkk yépp ci Sénégal mënu leen am un milliard cinq cent te li ci ëpp état bee leen koy jox kon yéen ana li di dajale ndax jotul ñu seet ñoo xam ne dëkk bi ñor na leen lu ci nekk boo demee déficit nga fay fekk boo ñëwee ci barabu fajukaay yi yéen la war li la joxe ba ngeen ko dajalee ñaata la damay laaj rek ana téeméeri conseil yi nga xam ne ñoom lañ tànnoon ngir ñu taxaw dëkk bi ñi ci ëpp nee nañu nañu toog rek ñenn ñu toog nañ di jël seen indemnité ak seen i bonu essence ñenn ñi dooni altoppe xamuñu dara ci luy defar seen yittey bopp leen gën a ñor yittey dëkk bi ñoom daal fu ñuy mose moo leen ñor waaye fu ñuy defaree seen yitte nekku ci mbokk yi amu vision amu leen gis-gis fukki at ak lu topp jot na ñu seet ñoo xam ne xam nañ mën nañ dëkk bi jaral na leen dimbale dëkk bee leen ñor waaye dimbale ko dëkk bi ñoru leen jot na l'homme qu'il faut à la place qu'il faut